toj ay vitre oto bi ci topp mooy divertir te boobu lañ war a gën a bàyyi xel parce que ñaar yee c'est flagrant mais bi stratégie la boo xamante ne soft soft software la guerre la boo xam ne guerre bu douce la mooy ñun élection présidentielle lañ war a jëm dafa am programme bu ñu war a jaay sénégalais yi tey bu ngeen demoon ci dëkk yu développé yépp a un an de l'élection présidentielle débat programmatique ngeen fay dégg ku nekk lan mooy vision ci réew mi mais Sénégal lañ ngay gis à un de l' élection présidentielle débat bi mooy kan mooy bokk kan moo dul bokk constitution bind ne nul ne peut faire plus de deux mandats ci dëkk boo xam ne ay lettres ñoo fa nekk ñuy werante ba xam waa ji dina bokk wala du bokk loolu nag il faut que bañ ko ni mu koy bañee mooy bu ñu waree wàcc si tali bi xeex ñu xeex mais nag dañu war a fexe ñun si suñu bopp ñu approprier wu suñu projet comprendre lan moo ko tax a jug pour dem mën ko jaay sénégalais yi parce que nag am na sénégalais yu adhéré suñu projet ñu ëpp ñu bëri mais am na ñeneen ñoo xamante ne c'est une masse silencieuse bu nekk ci kër yi il faut que ñu jëli leen wax ak ñoom loolu mooy force bu Pastef kon maa ngi rafet rafetlu initiative bi di kontaan bu baax a baax ci dynamisme bi nga xam ne moo am ci section communale bi euh, vraiment di ci féliciter tous les frères concernant le thème bi nga xam ne moom nañu joxoon mooy le projet de Pastef mu nekk thème bu yaatu parce que nit ci projet la judd te ci projet lay lay lay lay ndax yàlla bi muy bind doomu aadama nee naa dafa woote réunion dafa woo malaaka yi ba ñu ñëw malaaka yi yàlla moo wax ci benn saar alxuraan ne laa yansuuna allaha ma amrahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun maanaam ñoom sañ ñoo bañ lu ma leen digal te nag lu ma def dañ koy def lu ma digal dañ koy def lu mu leen digal dañ koy def xam nga doomu aadama may nañ ko mu am capacité pour choisir su ko neexee mu def su ko neexee mu bàyyi mooy inna hadeynaahu sabila imma shakira maa imma kafura mais malaaka moom amul sax choix mais yàlla ba muy bind doomu aadama woo na malaaka yëgal leen ko ne man de suuf dama fa bëgg a créer benn xalifa benn nit ku may wuutu kon nit mission moo ko indi ci kaw suuf mission nag ku la ko dénk am na lu mu bëgg ci yow loolu di nga dox pour réaliser ko loolu mooy un projet donc nit projet la beneen bi mooy nit nit buy dox ci kaw suuf nekkul bàyyi ma la ba euh, bu lekkee ba suur naan ba màndi tëdd noflaay rek jeex na dafa am mission bu mu war a jox communauté bu mu bokk walla société bu mu bokk am na fu loo xam ne fekk na ko fu mu baax mu war ko perpétuer am na lu mu fa fekk loo xam ne jaarul yoon wala bokk mën na gën a baax mu jëm ko gën a ñoŋal wala mu corriger ko Pastef nag c'est un parti politique comme ni ma ko waxee parti politique nag vocation mooy bu nekkee ci société mooy fexe ba conquérir la pouvoir bu ko conquérir ba pare mu exercer ko loolu nag suñ koy wax de façon originale la ñuy wax ci parti politique yi parce que Sénégal il y a plus de 300 partis waxuma ko parce que chauvinisme la wala dañoo jàpp ne ñoo gën ñeneen ñi mais ban parti politique ngeen di gis Sénégal bu élection jotee bu élection jotul tout les tous les week ñu ngi en activité yéen a ngi seen commune da ngeen dégg yeneen parti politique def activité pour ngeen déggaat nit ñi élection moo ñëw ñu soxla xobu nit ñi pour toog ci ay postes de responsabilité parce que c'est un parti boo xam ne dafa jàppee politique activité citoyenne. loolu mooy vocation wu parti politique bu ñu wax ci projet nag balaa ñuy wax projet bi parce que projet bi mbébét la il faut ñu wax ñan ñooy les porteurs du projet ñan ñoo porter projet bi parce que looloo ëpp solo projet li muy rafet rafet rafet ñi ko porter su fekkente ne li ñuy wax gëmuñu ko bu fekkente ne matewuñu ko projet bi mënta réussir Pastef nag bu ngeen xoolee tour bi dañuy naan patriote africain du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité kon projet bi nag ñi ko porté mun nañ ne ñett yi moo leen caractériser bi si jiitu mooy ay africain nañ bi si toog mooy ay sénégalais nañ bi ci tegu mooy ay patriote nañ lu tax may insister ci moo yooyu mooy parti boo xam ne dafa juddu Sénégal daal di jël boppam jël tour Afrique def ko ci parce que nekkul woon ci tur bi bañ de ba ñu ba ñu changé parti def fusion ak yeneen parti yeneen organisation yu toll ci treize en deux mille vingt et ci dugal africain mooy ñun dañu jàpp ne Sénégal pour mu nekk puissance parce que président Ousmane Sonko mus na ko wax Sénégal mën na développer moom kenn mais àdduna bi c'est un monde de compétition Ukraine dëkk la bu moom boppam mais xëy nañ benn jour benn dëkk wuteek moom gis-gis. gis ngeen li ko dal libi tabaxoon nañ ko ba ña fa nekk paradis sur terre nañ nekkoon ñu xëy benn jour àdduna bi jug annexé ko yàq ko tasaare ko ba tey yéen ñi ñëpp kenn xalaatul dem libi kon adduna bi développé wu kase ku nekk mën na ko def ay Suisse ay dëkk yu ndaw développé wu nañ mais luy tax nga mën a nekk ci sécurité ah il faut nga nekk une puissance il faut nga peser soit par sa koppar sa koom-koom comme ay Qatar Arabie Saoudite wala nga peser par sa puissance militaire te loolu benn dëkk kase munu ko def en Afrique africains yi bu ñu booloowul du ñu nekk une puissance économique du ñu nekk une puissance militaire donc loolu moo tax waa Pastef ne ñoom ñun ay africains nañ d'abord beneen bi mooy ay sénégalais nañu ay sénégalais nañ mooy lan mooy ñun du ñu jël suñu parti calqué ko ci ay idéologie yeneen parti yu jógee ci bitim réew te am na fi ñun ay parti yoo xam ne ci Sénégal lañu ancré wu moo tax bu ngeen xoolee article cinq bi ma doon wax ci statut yu njëkk yi liñ fa waxoon mooy Pastef adossé wul ci benn idéologie du libéralisme du socialisme du communisme pragmatisme nañ doon wax mooy lépp loo xam ne mooy intérêt wu Sénégal nañ ko doxal mooy li chinois bi doon wax peu importe que les chats soient gris ou blancs l'essentiel c'est qu'il attrape des souris kon loolu mooy sénégalais bu ñu nee nag mooy lan ñii ay africain nañ ay sénégalais nañ waaye nag ñun suñu dëkk bi amoon nañ suñu morom nit ñoo xam ne bi tubaab yi ñëwee ñu takk du ñu def ay jaam dañoo collaborer tubaab yi am na ñoo xam ne jamono colonisation ay ambassadeur tubaab nañu woon am na ñoo xam ne après indépendance ba léegi bu ñu xëyee suba ngoon ñu ngi dox ci intérêt wu tubaab yi am na suñu nekk ay chef d' état am na suñu nekk ay homme d' état ministre directeur leneen leneen. am na si ñu nekk ci yeneen secteur comme lu mel ni ay homme d'affaires ak yeneen ak yeneen kon patriotisme kon moo manqué woon Sénégal en réalité Sénégal mësta manqué ay borom xam-xam Afrique mësta manqué ay borom xam-xam mais Afrique lu mu raflé woon loo xam ne li mu ci am bariwut te li mu ci amoon kas néew faagaagal nañ leen ci dëkk yu bëri mooy ñoo xam ne gëm nañu seen réew ndax nag loolu moo ñu différencier kese ak tubaab yi. porteur du projet bi kon nañu xam ne képp ku nekk passif ñett yi dafa war a leer sa bopp ne man projet bi may porté dama koy porté en tant que africain du Sénégal moo tax on parle de patriote africain du Sénégal parce que am ñoo xam ne dañu gëm ne frontières yi ñu tracé tubaab yi tracé ñu ko tant que dépassé wuñu loolu suñu réew yi ni ñu ko bëgg a tabaxee duñ ko tabax parce que ay balkanisation la nga gis diggante Sénégal ak Gambie gis ngeen ni mu mel loolu ñun suñuy dëkk ñun moo nañ ci waxtaan xool lan mooy suñuy intérêt ñun ñun ñëpp ñun ak suñuy mbokk Gambie ak leneen mais ni ko tubaab yi daggee nga dem kongo ñu xaaj ko leneen ak leneen donc loolu dañ ci war a jug le projet de Pastef nag dafa am finalité dafa am un objectif muy benn ñaareel bi mooy dafa am ay dimension objectif bi maanaam da nga koy jël nga tas ko bi ci bi ci topp mooy projet bi dafa am ay moyen yoo xam ne ci lay jaar pour atteindre objectif bi ma bi ma njëkk bi ma war a wax bu ngeen bëggee xam objectif bi généralement da ngeen di jëm ci article 3 bu statut parti bi ma liiral leen ko mooy l'objectif de Pastef les Patriotes et de mettre en œuvre le programme qui fera du Sénégal une nation prospère et solidaire ancrée dans les valeurs forte du travail et de la solidarité au sein d'une Afrique libre et unie dans un monde meilleur lii mooy l'objectif bokk ak nag li ma waxoon keroog te muy dimension wu projet bi man loolu laa ko jàppee mais gàttal la woon mais dinaa ci ñëw ci article mooy article cinq bi finalité boobu mooy lan mooy def Sénégal une nation prospère kon donc but bi nation prospère et solidaire pourquoi on parle de nation prospère et solidaire mooy choisir ñu ko doonu prospérité bu ñu koy wax c'est sur le plan économique mooy dëkk bi am koom nit ñi seen salaire yokk infrastructure de base yi war a am am ci dëkk bi ñëpp accéder à l'énergie ñëpp accéder à l'eau potable képp ku investir sa alal nga gis ci yokk-yokk loolu mooy prospérité baykat bi sentir ko nappkat bi sentir ko enseignant bi sentir ko mais prospérité boo xam ne ay inégalité moo am ñi dañoo am ba sonn lool ba sori lool ñii ñàkk ba du amul ñu ñuy lekk comme boo demee dëkk africain yu mel Nigéria wala Angola mais est-ce que loolu modèle développement bu baax la loolu ay crise du doo ci doo ci jug donc modèle boobu il faut que ñu ñu ñu moytu ko moo tax prospère et solidaire dëkk boo xam ne dañuy promouvoir solidarité mooy dimbalante te solidarité ki ci war a jiitu mooy état te état nag bu ñu leen nee solidarité waxuñ la ngay jël ay bourses vingt cinq mille wala quarante mille tous les trois mois nga jox ko nit ñi solidarité mooy ndimbal boo xam ne day fexe ba yow nga jug ci ndimbal loolu mooy solidarité buñ ne solidarité boobu noonu dañ ne ancré dans les valeurs fortes du travail pourquoi on parle du travail am kase prospérité mun na nekk de mais prospérité bi lan mooy base bi lan mooy facteur bi tax yow nga prospère mooy da ngaa nangoo liggéey foofu dama fay profité pour wax tous les militants du parti que naam parti bi soxla na ay militants yu am xam-xam ñoo xam ne ëllëg dina konte si ñoom pour tabax réew mi ñu bëri mun nañ ci yor ay responsabilités mais képp koo xamante ne politique da nga jàpp ne mooy sa moyen pour tedd moyen d'ascension sociale boo changé wul paradigme jarul ngay ñëw passif loolu il faut mu leer képp koo xamante ne da nga bëgg am alal. fexeel nga uti xam-xam fexeel nga uti liggéey teddal sa bopp ndax loolu mooy tax ci politique kenn du la tënk kenn du la tënk kenn tënk nga am liberté liberté boobu soo ko mënul am sur le plan politique ci kanamu benn leader wala ci say ñi say nawle mais est-ce que yow li ngay bëgg xeex pour sa réew di nga ko am donc kon loolu mooy sa gage pour nga am dignité mooy sa gage pour nga décence bi nga soxla yow nga am ko buñ nee nag. ancré dans dans les valeurs fortes du travail ñi teg ci ne dans une Afrique unie et libre et dans un monde meilleur mooy kon jàpp leen ne lii tax loolu mën a am il faut que Afrique jëm kanam il faut que Afrique jëm kanam mais bu fekkee Afrique boo jëlee tey Union africaine bi fi nekk lan la sumb comme initiative globale boo xam ne jëriñ na Afrique. projet yu Kadhafi amoon ci fonds monétaire africain fan la toll monnaie unique africain bi ñu doon wax fan nañ ci toll ana monnaie wu CEDEAO bi ñu doon wax fan lañ ci toll initiative yooyu yëpp ce des initiatives vouées à l'échec benn facteur kese la benn facteur kese moo ko indi amul beneen explication ñi nekk à des états africains ñi si ñi si ëpp bugguñu seeni réew te loolu général de doon wax France mu ne la problème des chefs d'État africains c'est qu'ils n'aiment pas leur pays bëgguñu seen réew parce que réew ku ko bëggul rek mooy jël lu toll ni petrole lu toll ni gaz lu toll ni or lu toll ni zircon tey le ko ay puissance étrangère di ci jël ay miettes jàpp ne yow loolu mooy sa koom-koom Sénégal rek ngay gis un chef d'État ñu fal la nga taxaw devant des investisseurs étrangers te li may wax nii ku dem ci